walindaw di président mouvement bi di yoonu ndam doon waxtaan ak taskati xibaar ci lu soxal tolluwaayu politique ci réewum Sénégal ak it nag rawatina mouvement bi ñeel élection législative yi nga ni moom président mouvement yoonu ndam ne na fawon ni président Diomaye ci élection présidentielle yi noonu lay demee eh, waat itam ñeel élection législative yi itam mouvement bi day wax fa deug yalla mi ngi wéy di law ci bir commune Bambilor tay tam nak liggéey bobu ñi ngi ci ngir nak mu gëna baaw naan Waly président mouvement yonu ndam ci micro Bambilor Actu. Euh, asalaamaaleykum euh, ma ngi leen di nuyu bu baax euh, di commencer nuyu bi nak ci sunu papa le délégué de quartier di C de la cité Comico di nuyu bu baax le responsable Khadi Komiko est le responsable des femmes qui jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk mouvement yoonu ndam di aussi sunu doyen Gningue moom aussi il est de la Comico di sunu conseil spécial di nuyu aussi Ibrahimaka, qui est le coordinateur des jeunes du mouvement yoonu ndam di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñu ngi fi toog muy ñi nga ne pour assister point de presse parce que de di lo xamné sax wajuñu ko tamit ni lañ ko won euh dans la plus grande discrétion xamna né sax à travers doyen damay nuyu tous les responsables politiques d'abord du mouvement Yoni Ndam dans les différents villages de la commune de Bambilor parce que nak, Yoni Ndam mu ngi fep bañ sàlleen yi wala joolaay ak peli topp suñuy tànk moom moo tax ñu defee ko nii parce que ni ñu ko bëggoon a defee yaakaar naa buñ ko defoon kon jomaay sax mun nañoo seet si tey si guddi kon nag maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp duma ci jaar ci ci tur ci kenn waaye bu ñu dégloo lii dinañ xam ne ñoom laay waxal nuyu naa leen bu baax sant leen gërëm leen point de presse bi li ko undu mooy ñun dafa am fu ñu nekkoon am fu ñu ñëw am lu ñu def am fu ñu jëm Euh, Yalla dogal on était avec la coalition Diomaye président lors des élections présidentielles et depuis Bobo ba léegi amul lenn changé ci sunu démarche parce que nag euh, yaakaar naa ni lolu sax du question Wally kan lay andal ci élection législative du question parce que munoo bëgg meew ba paré bañ nag bi mun ta nek mënuñoo gagné ay élection présidentielle avec le président Bassirou Diomaye Faye ba paraître de changer camp politique c'est impossible c'est d'ailleurs utopique raison pour laquelle on réitère notre engagement envers le président Ousmane Sonko envers le président Bassirou Diomaye donc le mouvement Yonundam serait toujours derrière le président Bassirou Diomaye parce que on a gagné avec le président Diomay lors des élections passées kon ñun que ba président pas le président ñuy door di pour jàppale on s'est investi dans le domaine matériel dans le domaine financier on s'est on est aussi investi corps et âme pour la victoire du 24 mars passé raison pour laquelle ñun nous euh, du nous sommes ñu ne wali Ndaw mu ngi and ak basiru jomay fay wala président Ousmane Sonko ci élection législative yi pour une majorité présidentielle c'est normal parce que nak mëno fal président ba mu falu nga ne noonoo koku dama koy xex pour mu baña am majorité man gëmuma lolu ak ku ñu munti investir d'ailleurs man soxlawuma ko ma investir pour ces ces ces ces ces élections législatives jéemuma ko sax wax deug yalla ndax man mi buma ma bëggoon demal sam bop damay demal sam bop kon nak xaruma ku ma investir wa ilaa sama xel sax nekul pour wali nek député donc xelu ñenn ñi mun dal ndax xam nañ ne Wally yëngatuwul ci daray xëccu raison pour laquelle sunu sunu sunu noppi gogu yëpp liko waralon moy mooy xaar ba wax jot ñun ñu wax on est derrière le président Bassirou Diomaye fay on est toujours dans la coalition gagnante euh, la coalition Diomaye président donc doyen point de presse bi c'est pour réitérer notre engagement derrière le président Bassirou Diomaye pour qu'il obtienne vraiment euh, une majorité

Et cela est dû à la malgouvernance euh, de ce que se disait responsable et qui nous ont montré en particulier aussi de quel ils étaient. C'est pourquoi vraiment on est, on est forcé de reconnaître qu'on n'avait pas en face de nous un régime au pouvoir digne de ce nom. ce que nous, on croyait avoir en face de nous des patriotes sincères, une démocratie vertueuse, de parole, de dignité et de respect. Mais on avait en face de nous des, antidémocrates, des fonctionnaires de la République. 80 Sénégalais sont morts. 80, 80 Sénégalais souteneurs du projet sont morts. 1500 personnes parmi nous ont connu la prison. C'est pourquoi on avait lancé un appel au peuple sénégalais de leur donner la sanction de leur mauvaise gestion et de donner à Bassirou Djamar Faye, Bassirou Djamar Faye, mandat pour assainir, pour que d'abord la, la démocratie soit ce qu'elle doit être, et pour ensuite une gestion sobre et vertueuse par rapport au pays. C'est la raison pour laquelle Yorundam qui s'est inverti, comme le dit le président Kourja qui a battu campagne, qui a investi tous ses moyens logistiques, financiers, pour quand même porter le président Diomaye à la tête du pays avec plus de 54%. Moi, je pense que cela est dû c'est à cause de ça que nous avons soutenu le président Diomaye. Maintenant, par rapport aux élections euh, législatives, je pense que nous avons entamé des, travaux. Euh, euh, je pense que c'était le jeudi. Bon, travaux qui se sont, ça dit pour réfléchir par rapport aux élections législatives. Travaux qui se sont poursuivis le vendredi les samedis et les dimanches, pour confirmer ce qu'a dit le président, nous avons décidé de rester là où on était, c'est-à-dire le président Diomaye Faye, pour implantation ce mouvement. Euh, Je pense que euh, ce une démarche. nous ñaan un mouvement qui est structuré waxuma ci commune mais dans le département de Rufisque parce que nous avons xamante nañ suñu biir xam nañ de si li de fonctionner et pour ce comme président du gouvernement, ko président euh, députation nous ñu wutuñu si mais mais il y a des essais à venir quand même yo savez, nous on ne fait pas de la politique pour nous sommes pas venus pour faire de la figuration on est venu pour briguer un mandat au niveau de la commune de Mamilor. et pour ce vous nañ c'est un travail de terrain c'est pourquoi on a parlé tout à l'heure du secrétariat permanent. Allez-y parler à d'autres qui politiques. Qu'est-ce que c'est que le secrétariat D'autres ne diront pas. Donc, on est en train de faire un travail sérieux. Quand vous dites La responsable des femmes est là. Le responsable des jeunes est là. Il y a d'autres responsables. C'est ce qu'on appelle les mouvements internes. Ils sont là, ils font leur travail. Ils sont membres du secrétariat permanent. Donc, euh, je pense que ni euh, tourne yi envisage nañ tourne yoo xam ne so au niveau de de de Bambilor je pense que daal suñu paree ak fu ci toll nit ñi dinañ xam ne vraiment on est en train de faire un travail sérieux li ci des nag loolu moom c'est au niveau peut-être buñ ci paree dinañ ci gën wax am liggéey boo xam ne bii nañ ci pareeguñ ci suñ ci paree dinañ ci madame Khady Komiko di responsable jigéen ñi ne ñoom daal daanu ànd ak mouvement bi dem ba jeex nag ndax nag kii di président yoonu ndam di euh, Waly ndaw ci yoonu yokkute la leen teg muy woon ak moroomi jigéenam yépp ñëw adhéré na mu gën a yaatoo ci biir mouvement bi ñu toole ko moom itam ci micro Bambilor Actu. dañoo ànd ak suñu président muy président Waly mu taxawal mouvement yoonu ndam euh, nekk ci jàmbaar nag macha allah. di jàppale góor ñi waaye di jàppale tamit jigéen ñi euh, pour yaatal liggéey bi awma ci problème macha allah parce que moom ku ko xam-xam ko ci njàmbarteem ak gëm boppam ndax du ragal te du yaafus kon bu taxawalee dara ñun dañuy kontaan lool sax pour liggéey ak moom pour liggéey ak moom parce que jàppale bi mi ngi fi yëg-yëg bi mi ngi fi wax dëgg yàlla ku am cër la ci ay responsable am yi nga xam ne mi ngi ànd ak ñoom di liggéey moo tax foofu moom amuñu ci benn problème ku fi ñëw di ci fekk euh, jàmm ju mat sëkk ak salaam gu mat sëkk président Waly nekk ku gëm boppam koo xam ne ku neex a àndal la euh, ñi nga xamante ne maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw adhéré ci mouvement yoonu ndam te xam ne yokkute la ki nga xam ne moo ko taxawal muy muy Waly ku am taxawaay la ci ay ci ay responsable am ku jàppale tamit ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom di liggéey ñun dañoo taxawal euh, groupe Calabas ànd nawle ci cité comico waaye mooy njëkk yëkkate alalam dugal ko ci leket boobu ba tey jii leket boobu boot na lu mat ñetti téeméeri jigéen ci biir comico bi ñoom ñëpp nañu ñëw adhéré ci mouvement yoonu ndam topp ci ginnaaw président Waly ñu ànd liggéey pour mën a suqali suñu réew suqali suñu gox macha allah Waly Ndao gërëm staff bi nga xam ni ñoo koy jàppale ci mouvement bi mu samp di yoonu ndam ci la soxal nag élection législative yi nga xam ni moom la ñu dëgmal nee na daal du candidat ndax nag du ay teggin wax fa dëgg yàlla am ñu mu fekk ci biir partie parti fa ba dara dul dara ñu nekk ci tey jii moom mu ñëw rek di leen bëgg a diir mbagg waali ndaw ne daal loolu wax fa dëgg yàlla duy teggin ñeen nag élection locale yi nga xamante ne bii ma ngi ñëw ca kanam ne na daal moom ndigal lay xaar moom lay déglu ñu teewlu ko ci micro Bambilor Actu am na décision bu ñu fi jël ci présidentielle yi ñu ne Waly tey mu dee wala Waly tey mu def ne wala Waly tey mu def na loolu man ñi ma entouré du ñu ay cuune ku dégg xadi komiko ni mu waxee di nga xam ni kii bu toogee ak Waly ndaw fi mu koy orienté foofu la ku dégg ak euh, le doyen ñi nga ni mu waxee di nga xam ni kii bu toogee ak Waly Ndao fa mu koy orienté foofu la man du ma def lenn te waxtaanuma ak ñi may àndal lu ma def dan ma ko def loo waaw te xëccoowuñu dara tamit tu as comment le responsable des jeunes à partagé bu ko neexoon mu ne damay wax mais automatiquement dane ñii lu ñu wax day na kon nañu yeggale le mouvement c'est comme ça ça se déroule comme ça euh, vraiment dama len di remercier bu baax di remercier aussi l'ensemble des responsables politiques des villages de la commune de Bambilor parce que nak wali ndaw nekatul Waly wu Médina Bambilor koku ñepp xam nañ ko xana ku mu neexut wala bok ku ku ku bëggul wali mom moy wax leneen mais comme li ñuy wax rek waaxu gileem xajul ci pantre te li ci kanam raw li bët en tout cas gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi ci liggéey bi di def li ñu war a def waaw ñu nag sunuy mbir duñ ko boole ak wax l'essentiel ané que jëf la ñu gën a mën ko wax waaw loolu moom yaakaar naa képp koo xam ne xam na Waly ndaw rek vraiment loolu nga ko xamee te tamit euh, Khadiko Miko noonu lay doxe ñinga euh, noonu lay doxe les autres responsables aussi du mouvement noonu la ñuy doxe raison pour la laquelle saa yu ñu génnee rek ñu ne lii lan la est-ce que li ay nit la lan moo waral lii lan moo def ne loolu nag liggéey moom moo koy maye liggéey bi nag le doyen laa di ñun sunu lépp ci suuf lañ koy def d'ailleurs à partir de vingt et une heures vingt deux heures la ñuy génn fixer sunuy rendez-vous dem seeti ñu ñuy waxtaanal waaw tekk boo gis rek am na fu mu jëm kon sunu tekk bii nii am na lu tax ñun ñu defoon ko et je vous garantis que tay bu fekkonte ne woon tey dañ né dañu dañu dañu dañu resté won ci logique bi nga xamné mom lañu resté won appeler tous les responsables politiques des villages yaakaar tay tey Bambilor bu subaa débat bi dina gëna a yaatu kon lolu euh dañ koy aj ba beneen ñaanal ñi nga xamné dinañ leen investir ci liste Pastef bu euh à travers may nuyu le coordinateur Moustapha Seck euh, aussi euh, Ousmane Rougui Sow maa ngi koy nuyuwaale bu baax di nuyu aussi euh, vraiment képp koo xam ne daal yaa ngi ci Pastef di di di yëngatu vraiment pour la réussite du parti parce que ñun dañu ñëw pour doole leen rek sama kàddu démb mooy sama kàddu tey xëccoo ma ak ñoom dara man wàlli li ma war a nekk man maa koy liggéeyal sama bopp yaakaaruma ko ci Pastef yaakaaruma ko euh, APR yaakaaruma ko réew mi sama bopp laa ko yaakaaree ak ñii nga xam ne ñoom ñoo may jàppale ci ñooñu laa ko yaakaar mais yaakaaruma ko ci parti local yi amaguma ci ndigal <laughs> maa ngi déglu maa ngi déglu les gars rek les responsables euh, comme li ñuy wax rek man moom dañ may yónni rek buñ ma yónnee ma dem buñ ma yónnee wut ma toog ñoom lay dégluwaa ah. wax dëgg yàlla comme amaguma ci ndigal nag awma ci sañ-sañu wax ci raison pour la laquelle xam naa loolu moom dañ koy bàyyi ba ñu jox ma ndigal rek incha allah. waaw li ma ciy dolli rek mooy nuyu waa Medina Bambilor bu baax euh, ñi fi toog nii à part mi fi jógee Ousmane Ibrahima Ka amul kenn ku jóge Medina Bambilor loolu nag ñun ñoo xam lu tax ñu def ko comico ñun ñoo xam li tax ñu woo leen ñu ñëw toog parce que loo gis euh, dafa am nit sax ruux ruux moo koy dundal waaw kon nag le mouvement yoonu ndam ruux bi mooy Medina Bambilor ak comico tey nag Waly existence am tey comico ñii ñoom ñoo ko waral ñii toog ñoom ñoo tax waali tey kenn kenn fan yee passé sax maa ngi gis benn waay bu dugg foofu di jéem a am lu muy def foofu te xamul ne foofu dafa am borom komiko moom samay jaamu joolaa ñoo fa nekk ak ay ak samay jaamu pël kon foofu du buntu affaire bi du foofu euh, Waly ndaw li koy li koy li koy wàññi ci politique du loolu du xoqatal du chantage du promesse man dafa am nu may doxe te ku xam waali ndaw xam ni lépp loo xam ne génn na ci sama gémmiñ muy lu ma gëm dootuma ci dellu gannaaw waaw kooku nag ça veut tout dire waaw amul ku ma dul woo ci waa lii dégg naa lii dégg naa laa dégg naa non ma ne ma ne li ma leen di tontu ndax man da ngeen ko dégg ci sama gémmiñ wala ci ñi nga xam ne ñoom ñii luñ la wax ci man moo am ñi ma wër nii luñ la wax ci man moom moo am mais à part ñi lun la wax ci wali c'est des rumeurs am na rumeur yo xam nak day arranger yenn kan yi loolu def len di dundal kon dañ len di baye ak rumeur yooyu ñu ci dund kon euh, man mom dama len di gëreum sant len nuyu wa bambilor village parce que nak man euh, mun na wax ne bam medina bambilor la yeewoo mais bir bambilor lan ma gëna bëgg à chaque fois dama len koy wax ci sunu réunion yi medina bambilor parce que bambilor mu neex mu naqari Waly Ndao dafa bokk ci politiku Bambilor te Waly Ndao xam na ne mi ngi ci xolu waa Bambilor kon waa Bambilor maa ngi leen di gërëm di leen sant surtout la jeunesse surtout la jeunesse di remercier aussi la jeunesse de den je peux vous montrer des messages Yo xam ni des jeunes qui souhaitent ma candidature à la candidature pour être député ay messages yu dul jeex yoo xam ne dañu bëggoon man ma nekk candidat pour élection législative mais loo gis rek àpp Amna luñu dëgmal ëppal solo luñu gëna bëgg nañu liggéey pour loolu nañu liggéey pour loolu léni ñi nga xamné man dama leen fa fekk ci parti bi amna ci kuma ci waxtaanal pour ne pas citer son nom bien avant élection législative 5 cinq mois ou bien six mois avant partagé na ci ak mom waaw mané ko buma ma yow nga nek député parce que man dama fi la fekk ci parti bi li ngeen daj ci parti bi ñun dajuñu ko kon man waali xel xel gënul gàtt xawma ma koy waxee man séeréer la nak déggu wolof day day day day day ñak fayda lool man ma ñëw ñu dégg ñu né waali ndaw mu ngay xëccio ak di wala diw pour ay ay ay candidature député etc etc wa donc vraiment loolu mom jéggal na len ko di nuyu nak l'ensemble des villages village bo xamné déggo ma tuddu sa tour ah mun naa ci mun naa ci jaar gorom deux mun na parce que samay responsable politique ñi ngi fa ñi ngi fa bu baax a baax sax gorom un même chose jak saaw mu ngi fii am na sax ku fi toog mu ngi fii ci jotaay bi mbëtt sama mbëtt la mbéy sama mbéy la loolu nag bu ma ko waxee dina am koo xam ne xam naa mun naa mu woo ma téléphone mais mbéy sama mbéy la euh, waya mbaam sama waya mbaam la euh, ngenduuf sama ngenduuf la ndax samay jaami pël ñoo fa dëkk Deni biram ndaw noor deeni biram ndaw sud sama mam moko xali muy biram ndaw kon man den la ma dëkk man domu commune bi la kon buma taxawé euleuk ñu né wali ndaw dafa soxla commune bi comme ni ngeen ko souhaité ni ngeen ko bëggé am amin kon man warna naa lu war la ci man parce que jaar naa fi mo wara jaar j'ai deux professeurs ma len di nuyu au passage l'un c'est Modou sallo Diop makoy nuyu bu baax Euh, di ko remercier di ko beral nuyu bu baax ne que di ko wax ne dinañ dans de bref délai parce que on a beaucoup à à se partager di wat aussi le maire de la commune de Bambilor muy Ndiagne Diop koy nuyu bu baax parce que politique du animosité politique du yakal nit ki politique du yak nit man gëmuma lolu ñii ma andal tey muy coalition suba buñu ñu luñu warta def man may njëkk taxaw dénoncé ko le président Diomaye bu defone lu warta def man may njëkk taxaw ci commune Bambilor wax ci man duma dox ak nit wala ma and ak nit ci yama neex wa à travers cela may lancé walé un message au président Bassirou Diomaye Fay ne ko gis nga amna lo loo ne dañ koy wax man bok ñu ci daan dox ma gis muma doon nakari même bu fekente ne ah munta ñak na wàññeeku parce que convoquer des gens à par, par, par rapport à des propos yoo xam ne vraiment yu ñàkk fayda la nit ki mooy ñàkkal boppam fayda man Wally du ma ko def du ma jàkkaarloo ak nit ci ay média naan ko da ngay fen du ma ko def je ne le pas nit ki bu respecté boppam rek am am li am li mu bëgg mais nit koo xam ne tout le temps day toog di saaga di def nit ñi sénégalais yeewu nañ de telle sort que déglootuñu nit ñi nga xam ne dañuy dénigrer wala ñuy saaga wala di wax di n'importe quoi loolu ñi koy def ñoom nañu xam ne noonu la ñu toll seen tolluwaay la donc man may lancé waale un message au président Bassirou Diakhar Faye man ko koy euh, vraiment ñaan nek gis nga amna lo loo ne ñi fi nekkoon lan daan def ba ñepp a len leen buñ ca teg seen tank ñi saga nan len bayyi ñu saga parce que saga taxut nga falu saga taxut nga am dara Ousmane Sonko a convaincu les Sénégalais pour être le PM de la République ba tey jii lépp lu mu wax ñu ñu par des idées hein, par des idées le discours qui m'a séduit envers Ousmane Sonko c'était le discours à l'Assemblée lorsqu'il parlait de la fiscalité C'est ce qui ma intéressé wu ci Ousmane Sonko top ko donc le président Bassirou Diomaye Faye qu'il obtienne vraiment la majorité à l'Assemblée au soir du 17 donc ma vous di nuyu bu baax soxna Khady yow aw ma sa fay lépp lo wax ci man rek vraiment man sama Eh, incha allah dans les jours à venir yàggul di nga di nga ñëpp dinañ xam lu may wax te ñëpp dinañ la dégg le doyen ñi nga aussi ma koy beral nuyoo bu baax gars yi moom ngeen gis am na ñeneen waaw donc Wally bu jëlee décision rek wala mu wax ñu ne kan ci kan la nekk wala lan ak lan ñii ñoo nekk sama gannaaw ak ñeneen loolu nag du lu ñuy wax léegi mais dans les jours à venir incha allah euh, dinañ gis lu bëree bëri en tout cas may nuyu la jeunesse de la commune de Bambilor ndax samay jeunes lañ. ci man la ñu far man la ñu man la ñu bëgg loolu lu leer nañ la waaw di nuyu aussi tout toutes les femmes de la commune de Bambilor di nuyu xalif g xalif xalif euh, le xalif de Bambilor muy Thierno Amadou Ba di nuyu sama sama sama sëriñ sama lépp muy euh, aussi El Hadj Malick Ba muy sama sama sama sama sama sama sama sama mag la sama sëriñ la sama péete la kooku ñëpp xam nañ ko di nuyu aussi sama sëriñ muy doomu xalif bi muy Omar kooku sama moy sama serigne mom lay wax serigne sax de ci kanamu papam donc maa koy nuyu bu baax di nuyu le chef de village de Bamilo, tous les chefs de village de la commune di nuyu bu baax a baax aussi vraiment sunu sunu délégué de quartier ak chef de village yi nga xamné ñom ñoo ëmb commune bi donc comme liñ koy waxé rek li duuf ci cin bi ci ci nag bi xajul ci cin bi nañ ko yemalé fi namon nañ micro yi mais bon euh, vraiment content nañu bu baax remercier suma mbokk joolaa yi toog ne baa Badji nga nuyul ma waa Comico nag nuyul ma leen bu baax man moom Comico sama Comico la waaw man d'ailleurs da gars yi sax dañ maa dóor set 0 te bëgguma woon mu demee noonu xam nga di jéggalu bu baax merci beaucoup. ñeel élection législative yi ak élection locale yi ñëw yal na yàlla def nu fekk lépp yal na yàlla def itam li nga xam ni moo gën ci ñoo mouvement bi gën itam ci askanu Sénégal.